ayca mbokku internet yi ñu nuyu leen xam ngeen champion wulli ngeen jàkkaar lool dimanche la ñu jëm incha allah diggam ak Boucher Ketchup ku ko gis xam ne mu ngi ci état. macha allah lan la dama laa mën a cat. te ma waaw foofu nii moom balaa ji may sangoo sax catu ma yombut waxal maa ngi sangu de. <laughs> yow koy dugal nga sa bopp ci ci ci wax ji sa nga jëm ci làmb ju mag ah, ah, ah. diggante ak Boucher. Ah. yéen ñaar ngeen yàgg xiifante dimanche moo ci des. yaa ngi ci waaw Mbaye dimanche moo ci des cinq jours vraiment ma may yàkkamti lool sax dimanche jot fii mu toll nii damay yàkkamti dimanche jot parce que bés bi day sama bés di féliciter Modou lool loolu waa des arènes muy nit ku baax ñu bokk entraînement mais muy nit ku baax ñu kaf di bëre ci salle bi bilaa xamoon naa ne dina am ndam Modou Lo nit ku baax la vraiment xool bu rafet la yoon war la du ma moom laa faroon waaw que dama bokk salle mu may conseil ñoom papis ne fa ba pare ba benn mbër ma marqué ma ma wax ko muy Franc jël sama numéro jàppale ma ci combat bi Franc waaw waaw financièrement mystiquement mystiquement yaa ngi dugal ngi dugal Franc de non xam laaj ko muy muy nit ku baax Franc maa ngi koy gërëm laay Pythagore aussi di ma jàppale ne ma ñooñu ñu entraîné d'une Modou Lo bi ñu nekkee saal laa xam ne il a bien préparé le combat. combat du rëy këccëg ba ko foofu biiram bu rëy boobu boo fekk ko dimanche. combat du rëy combat xol bi moo ba ak nga dëgër mën di door gars yi duñ la gis. man bu jeex dama doon entraîné naan ay doom ba toll ma neex. ñëw di xeex gars yi di may cokaas may xeex mab gars yi pakete ma ne ma kekk. mais di dimanche daa mën na xëf ka ca foofu yaakaar da dama koy xeex mën na ko kang ginaat. loolu nga entraîné donc ba mu miir bu bu ma song see ma ma mbaar ko mu def kat at. mais est ce que yow mun naa mbaar. Bousse est que xam nga ne. gëj nga compétir de bu wulli. Bousse Bousse Bousse bés xeexee maa ko mën même bu nu bëree bari que Mouhamed bu nu jàppantee. bu bëree tuuti ma daan ko ci bëreem. mais gëj gëj compétir man moom man daaw bëri naa de Arado Diouf. mais mais ren buuse bëri na. man may yow man de may may yooyu amul solo Modou Lo mi gis compétir waaye coup yi mu dóor wàcc bëri de. temps yi moo Lo nga jël daal. benn doo coup. yokk naa ko yokk naa ko 27 laay def buuse. keroog yokk naa coup yi 22 la Modou Lo door man 27. da ngay jëlee laa wax temps yi moo Lo nga jël. non danoo bokk saal mais aussi ngeen baal ma may may encouragé Ama parce que Ama Baldé Sénégal gépp ko war a appuyer parce que dafa am jom ni muy bëree mooy bëree ku am jom ni muy bëree moom laa bëgg mooy da ngay dox sa kaw adversaire Ama Baldé ni mu bëree ak Modou Lo noonu la def këcëb xam nga nee na damay song yow pankoo dox wàcc sa kaw di la dóor noo koy songe xanaa da bëgg bu dikkee ma xay xajal ko mu def mu dee. Mhm. dafa am xeex jàpp moo ko daan ci combat bi. jom donc. Ama Baldé dafa bëri jom dafa bëri jom Ama Baldé dafa bëri bëri jom parce que sëñ Ba ko man ku ma neex la bëreem du yàgg amateur yi dañu kontaan bëreem dina am xeex bëreem dina am daan gis nga lamb ji ñëppay daanu mais xam nga ne këccëg bi li mu def kaw ak 6 ans ah, Jokkel xam nga ne loolu. loolu du jom de. du mu ñëw téye sa bopp. bu ñëwee téye boppam loolu du jom bu Ketchup ñëwee téye boppam. Mm, mm, ma fekk ko. bu yow dama ñëw di la too. xa barke ñëwee téye boppam ma doog a fekki ko même bu may daanu ci lay daanu. bu may daanu ci lay daanu. mais risque ma ne ma ne sa bëre boo daanu. moo gën niil boo bu ñëpp gis nga. promoteurs yi dana fay xaalis ñun dina waaj di lekk lu leew ay kilifa dina jàppale man combat bii du ma ko nebbu liñ ma si jàppale ëpp na cinq millions waaw mais nag temps yaa ngi liggéey de xam nga loolu da ngaa am ay moyens da ngaa ñuul ay karam ci tellu maam Ablaye Fall tey soo Sénégal c'est trésor dama faa mu jox ma un million ne ma defaral sa oto sama oto anam normal matoor ba yàqu woon ma jël matoor mu ne ma leen laay xamal del lekk yàpp rek bëccëg gi yàpp bi mu jeexee ma demaat fa dimanche bee passé mu mu mu joxaat ma million ne ma ne ma boo boo daanee ñoo maye cinq millions kooku mooy trésorier général trésor man dama ay ministre ma xeeb la léegi trésorier général trésor public xam nga trésor yow mais yooyu nga am yëpp buuse am na ko moo la ko xaalis barke yow ma xaalis day dem Amérique ah, ñëw bu dee lekk bu baax mi ngi koy lekk visa fay gi la yem moom léegi moo ko reefan gi la yem bo boo fa demee yaa ngi maase euh, ponti wala maase pip pikin bi par rapport ak Sénégalais yi ñëpp a nga fa booy yi restaurant yaak ñëpp a fa Amérique moom léegi lu kenn war a topp moo ci réew mi amee Nicaragua bi tey na réew mi. mais mais ci ku gis sa de forme ak ci alimentation bi xam ne yaa ngi tudd repas bi. looy lekk ba pare dama entraînement barke sëñ ma perte naa ci quoi 4 kilos. 4 kilos am comment perte poids. parce que quoi bi bi ma koy jël. dama amoon biir. biir bi wàññeeku na et biir bi. sama coach bi di ma liggéey loo liggéey bu métti. biir bi bilaay walaay taala Bismi Ndoye aussi di ma ci jàppale. contact yi damay contact ak Bismi Ndoye moo tax itam bu nu jàppantee bi bilaay ma daan ko. nee na ma doo bëri li may def ak Bismi Ndoye ci ci diin yow lii egg ak yaatal na ko. Bismi Ndoye li ah. kilos ma koy daan. waaye kii da ngay daan Bismi du vidéo yaa ngi ni noo ko dégg nee na ma doo bëre doo dóor sa loxo na yaakaar donc sëñ dag lépp yàgg ah, ci lamb ji sama kër yëpp ay sëñ actuellement ne sama néeg néeg boo fag fi mu ne fa toog billaay waa Kolda ak fu ne andi ah, ah comme la gëm am naa moyen bi mun naa fi am am naa xaalis bi comme loolu la gëm kay ah nee loxo du jug mais bis boobu ah. tamit nee na loxo du jug de. billaahi walaay barke eh, sama ba bakk loxo bi Cheikh maa ngi lay gis sama loxo dina jóg combat bi sama xel da cee dal macha allah aussi nag di ko san nag. bi rek moom neex na de. Ah. ndax foo nekk kii daf laay bëre ñun ñu am daa bëri wax su daal <laughs> buuse bu chaque at nañu bëre ma ak moom bi laay moom neex na. ñëpp damay doon sax nit wuli kaay am lii maa ko jàppale waa ji bu ma daal daa bëri wax ma ne waay waay waay waay mi ne ko xam ji waay ba rek moom nee na kat wax dëgg seet la ah, loolu moom maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax xaalis baa ngi bëri macha allah ñu ngi may jàppale Ousmane Noël Dieng maa ngi koy sant mhm. Noël dem daf maa woo jàppale ma doyu ko mu boole maag le ministre Diène Farba Sarr ah? waaw Diène Farba Sarr jox ma rendez-vous suba laa fa war a dem di lancer appel waa Kaolack ñëpp léegi génn for bale mën di ministre yi rek Kaolack du nuy ministre dur génn far ba di ponkol mooy borom Kaolack Kaolack génn far ba saara ko moom amul directeur amul ministre bu fa nekk léegi ñëpp duñu dara génn far ba saar laa gëm am na maire kon Kaolack ni mu ñaawe léegi kon de loolu du maire xaw ma ko kooku maire la Kaolack am na maire pour man barke sëñ Bamba ba kon waa kooku doon boog gën fa baax doy na Noël Noël dafa baax pare naa si pare naa si dama dem Kaolack mu def lu am solo woowaa Kaolack gëpp këram ñu pare na ko mais loolu mooy politique. nga wax lan dimanche. sëñ bu am pare naa foofu. looy wax dimanche nga bokk koog sa grand am Moustapha am di Tapha Tine. di ñaan yàlla yal na ko yàlla may ndam. Pikine nañ de. Pikine Pikine nag mu nga bëgg a tas ñoom itam man li Pikine jaaxal nañ ma ah ñu bañ defet nag it Pikine ba <laughs> ñu mer. defet kat neexul la ñu deyaat yi. mais nee nañ Modou Lo dafa toog. ah waa Pikine toog. ah kon ñoom <laughs> loolu la ñu mujjee. nee def nañ recours. waar bi ni mu leele. mais est-ce yu bëri yi bawoo bawoo yi am ci bés boobu. nga baax ko ak ak pression. non ak jom. ak pression non xam nga nag nit man Tapha Tine mbay guy gi mbay guy ñun xam nga lu li ci dina dinañuy waxtaan sunu biir parce que sëñ Bamba nga xam ne dañu yokkanti joom ñoom ñëpp na dañu maa yokk joom ne ma comme yaay ubbi reyanteel yaay ubbi te yow njig jigéen nga yi yaalu ji reyanteel moo tax billaay dinaa reyan waay waay waay waay waay waay ko gaañ waay ah. euh, bi kon de seen bi baaxul tafaatin ah, mii ma gis barke sëñ Bamba bu caaxaan jeexee daa ëpp doole billaahi wallaahi taala te Tapha Tine nga xam nga ko dafa dafa mën a bëre. combat bi Eumeu Sène amu ci benn chance. barke sëñ Bamba. billaahi champion bu toll ni Eumeu bu yow bëre Tapha Tine bu dëree Eumeu Sène bu ko bu ko dooree loxo bi day dami ah yow doole danaa bokk ak technique. Eumeu Sène muscle la kuu la loxo bee gàtt loxo bi un centimètre vingt la. foog a doon. na combat. day daan mar Marley daan na ma waxoon naa ko soo ma mu ngi mag mbay gu gi dina ko daan. Kewel. Kewel Alboury Kewel laa faral mais Alboury aussi ku baax la damaa woo di ma conseil Alboury waaw woon na ma di ma conseil ci kësëb di ma ñaanal di may ma ndam. Alboury day bëre kësëb rek nag ah day bëre Kewel mais bu ko Kewel daanee ku mu amat daan. mais nag ko daan mais di daf ma woo parce que ñoo xam ne xam na ne mbër yi ay ñoom lis njaago ñoo bëgg di antenne dun yi man <laughs> damay ree mbër yi yëpp di ma conseillé ba këcc fa amul supporter mais kontaan nañu looy tàggoo di looy wax sa supporter yi dimanche di woo ñëpp di woo nag sama xarit Pape Modou Fall directeur de l'emploi mu jàppale ma ci ticket yi pour waa Bawol ñi parce que bi yoon comme tamati day bëre de man tam dama bëgg yóbbu ay supporters yu bëri Pape Modou Fall sama nit la sama xarit la maa ngi koy lancé appel président parti dëgg moo wóor parrainage si damaa dem parrainé parce que parti dëgg moo wóor laa bokk combat bii nag waa dëgg moo wóor yëpp maa ngi woo waa dëgg moo wóor di laa waaw di lancé par appel Pape Modou na ma may ay ticket yu bëree bëree bëri supporters yi ñëw stade dimanche di sant kan na Ablaye Tine xombol inamu Ablaye Tine la maire de xombool maa ngi koy gërëm bu baax di di nuyu Amath Dieye Touba Toul Djibril Thiaw Réfane ce que xam nga ne maire Réfane dañoo ci lam di billaay maire Touba Toul dañoo ci lam di maire Xombol dañoo ci lam ji moo tax lamb ji nun ku ci ñàkk jom ba ñàkk boo ne ñàkk jom dina laa war a bay ah. nun ñëpp même booy daanu dina la ci jom booy daan daan ci jom ñun ñëpp di bër ku fa ñëw di wane ñàkk jom di la war a bay hmm. parce que waa Bawol gépp ñëw ba Bawol fii mu toll même reefan lu mësta am reefan mooy am mooy le maire dafa may ay kaar yu bëree bare bare bëri ñëw waaw maire du may fa yu bëri kon loolu ñun dina war a am jom ñun ñëpp kii Aliou ñi nga kii moo ne reefan wér gis bokku ci Aliou mii moo ne supporter de Refane moo ne fañ koy bu tatin bi Refane lu ma sa am lu ma sa am su amee ñu def lu ma sa am ñun tam ñun ñëpp daan bis kii moo géré bis yi barki sëñ Bamba bakk ma sa am Refane mooy am ay bis fa ñëw fii Ndakaaru man ba bés boobu naa ci bokk di ñàkk fayda kontaan nañ benam kese mi nga xam ne biram bi ndox la xool faasiraay wat fii bu bu ba bés jàppoo dama koy kalooj botti laay luqe gën a ko Balla Gaye barke yaa mënuma Balla Gaye guddi yi bu ma mënuma Balla Gaye damaa mën léegi wax ma keneen yokkal yokkal sa adversaire Sa Thiès moom dof la moom c'est un moom laay waat te maa ngi ñibbi Ama Baldé kooku day attaqué mbër la mbër la ay bala moom na ñëw. barke Sëñ Tuubaa ma boole ma boole leen. xarañ loo nag. ay laay dafa dafa bëri vingt deux coups ko. wasalaam oto bi pa maab lay faal di gërëm bis ah. moo may jàppale ci entraînement yi vraiment ñoom ñëpp ñu may fi fi mu toll nii entraînement la jëm ni bilaay sama oto bi yëpp ay la ay gaa pour xeex <laughs> stalla loolu dafa yàgg man ba may xew dafa yàgg di 2007 maa gën na xew Sénégal barke Serigne Saliou Mbacké moo tax ñoom kisëb mi yàgg noo xew man 2007 maa maa gën a xew bala gay gën a xew Modou Lo ci kalaaf bi barke Serigne naa moo xam koo ñi metti dara pop lak Diop la du <laughs>